nga xam ne am na combat lu leer laa lay wax la même kii bi yaakaar ne combat bi de ma da yomb barki ngi nax boppam da ko wax ku ne yaa ngi nax yaa ngi nax nga dem liggéey. te am yëpp ci àdduna kii moo ci gën a ñàkk sens. foo teg loolu kii respecté kii du respecté wu ma ko. da nga respecté wu. respecté wu ma ko jéemu ma ko respecté. kii ku ma conseil ci moom sax li may conseil du ma ko def. ma jaar ni ma jaar ne ñu daje fii man ak moom ci naaw. li mu liggéey doyul. man sax lu ma liggéey doyul. sama ñeenti soxna yi laa koy booleel ñu duma ko daan ko attaqué koñe gagné incha allah mënoo ci dara. ci xaaral lay wax la man. dégluwuma ko jéemuma ko respecté barke alxuraan bu arbitre sifflé ma dàq ju ko day daw dama koy jàpp daan ko billaahi dama koy jàpp daan ko incha allah rabbi kii maa ko mën maa ko ëpp doole. diggante Fass ak yi wala faas ak Lamsar yëpp benn la rek Coly Faye numéro 2 ak PAM. Mohamed kooku mooy Garo Gare Garo Gare mooy cukki cukki noonu grand combat bi la ñuy waaj a moom ak Vito la mon ami naa la ziar. borom li TV ak li ko wër. borom ITV ak i rajo. waaw yaa nga ca de. gars yi nee nañu taay Lamine poñe na réew mi de. non ëpp naa def réew mi kay am mënu ma koo poñe. ak diaspora bi. non non attanu ma réew mi bàyyi ma bàyyi la ko rek. <laughs> bàyyi ma bàyyi la ko rek Lamine. bàyyi ma jàng ba ci kanam. bàyyi ma bàyyi la ko rek. bàyyi ma jàng rek. bàyyi ñu jàng kon ngay wax. non yow kay yow yaa ngi ci keppaar gu mag. <laughs> maa ngi jàng ba léegi de. keppaaru El Hadj Ngagne Ndiaye. waaw El Hadj Ngagne Ndiaye le professeur. le <laughs> ñu ngi ci ginnaaw di jàng rek de. mais namu naa la. maa la raw Lamine. dégg naa da ngaa takk takku suuf. as Lamine ëpp na def <laughs> ëpp naa def. dégg naa dégg takk takku suuf. naa def Lamine nun ay musulman la ñoo julit la. non takku suuf kat julit ko def. bu wér du ko def lamin noonoo non julit bu wer du ko def takku suuf. julit bu wér du ko def. Ah, def nga ko de xam nga wér nga borom ne ca alxuraan fan ki xoo wama taabalakum minan nisaa masna wa salaasa wa ruba fa in xumtum ala tajuloo fa waahidatun Lamine. waaw loolu amul ragal. waaw lu tax nga ragal ko def ko kon. <laughs> yàlla bàyyi nañu ba ñeent Lamine dafa sotteeku rek. waaw <laughs> ah, yow ah, bañ ko bëgg xanaa duma ma góor yàlla góor julit laa waaw waaw bëgg naa ko de. dama ñeenti laa koy wax. yaa ngi ci yoon yi wala. maa ngi ci yoon bi kay. yaa ngi ngoro. ah waaw maa ngi ngoro kay <laughs> Lamine moo wax loo. ñaata ngay ngoro ñaata ngay wax loo Lamine ba moo wax loo. fexeel li ngay wax nag bul ko dagg ITV. bàyyi Seleman. Seleman Mohamed Mohamed ba jëlu leen loolu. li wax fexeel ba bul ko teg. Lamine nag mooy dugal de Lamine Lamine nag mooy dugal de Mohamed yaak Lamine Mohamed yak yaak yaak Sele bàyyi la lii lii bu leen ko jàllale de. mais dañu jëm ci bés bu am am solo. muy ban. le 5 mars. walaay dalin koor yaa ngi door a wax lamb ji. le 5 mars lamb la. lamb yaakaar naa ne buñ ca jógee ku mandiwul lamb dootoo mandi lamb wala ndeysaan dañoo boole ñaari ñaar ña ña ña ñaari ñaar ña ñaari kii nu ñu koy waxati euh, ña ñaari kattakel la ñu boole. ñaari ñaari kattakel kattakel boo ko waxee mag ñi dinañu la ko xam la ni bàyyi bàyyil ba ci kanam ma tekki la ko bu combat bi gën a jege dinaa ko tekki. non tekki ko. bu combat bi gën a jege ma tekki ko bay bàyyil noonu rek Lamine. ban jàngat nga def ci boobu combat. jàngat bu doy waar Lamine muy ñaar ñoo diggante Sa Thiès ak Reug Reug muy ñaar ñoo xamante ni défaite interdit na Lamine bu ma ko waxee dina jaaxal ñu bëree bëri li tax muy défaite interdit ñoom ñaar ñëpp ci keppaaru mbër la ñuy wàlle Reug Reug ci keppaaru mbër lay waree fa muy waree Papa Kancaaro yi fa la doon ware fa muy waree fa la Modou Kan doon waree fa muy waree fa la Khadim Ndiaye doon ware fa muy waree fa la Ousmane jóob doon waree ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ba ci bàyyi ma njoon Sa Thiès fa muy waree keppaaru mbër la fa la Balla Gaye numéro doon waree. fa la Alioune Seye doon waree yàlla ko yàlla yërëm fa la Mohamed Ali doon waree fa la Daouda Fall doon waree fa la Lac de Guiers numéro 1 doon waree ba ci ñii tey magam bi nga xamante ne moo fa nekk. looloo tax ma ne defet interdit la ñoom ñaar ci diggante ki nga xamante ne mooy Sa Thiès ak Reug Reug mu ñaar ñoo xam ne kenn du ci maye dara kenn du ci may sa moroom dara te loo may sa morom mu jël ko sarax ko taalube yi kon nañu ci bàyyi xel bu baax combat bu neex la combat boo xamante ni buñ ci jógee Lamine yaakaar naa ne commandé wul lom dootoo commandé muy diggante Sa Thiès ak Reug Reug ana lan mooy avantage su rëg-rëg ci boobu combat. avantage su ci combat mu bañ a mu indi doole ju bëree bëree bëri yoo xamante ni dina mën a xaar saa ci vitesse mu ko fereenee rëg-rëg bu mënee tenir Sa Thiès 3 minutes am na 1000 chance pour daan ki nga xamante ne mooy Sa Thiès vitesse bu amee lu ko freiné am na 1000 chance pour daan Sa Thiès waaye une 30 secondes une minute su ku ko mënul ku ko ku ko mënul tenir mënoo daan Sa Thiès. ku mënul tenir bëritu Sa Thiès. bëritu Sa ku ko mënul tenir mënoo daan Sa li lii la dalee ci 30 secondes ba ci une minute une minute 30 ku ko mën a tenir ci Sa Thiès mënoo daan Sa Thiès loolu la ci Reug Reug bàyyi xel lamin noonu la demee Mamadou Diouf. bu ITV Mamadou Diouf bu i rajo kontaan nañ ci yow li nga wax dara mënu koo dindi. walaay ndeysaan des na leneen sax luñ ci war a waxtaan dinaa dinaa la invité sax ñu def ci ay plateau. amul benn problème incha allah bu soobee yàlla suñu borom. loolu tey neex le a la invité rajo ba. waaye gaaro gaaro ñu noonu taxaw Vito ngi noonu taxaw. ñaari xale yoo xamante ni ci goxu mbër lañu walla ñoom ñaar arbitre baa ngi wax ak ñoom. yemook dimanche 19 mars 2023 19h52 minutes la arbitre siffle grand combat. ndeysaan 19h52 minutes wala boog ma ne leen euh, fukki waxtu ak juróom-ñeent bi mu jotee ba tegg ñaati simili lamin juróom fukki simili ci la arbitre bi soufflé tombé ak tey ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñu naan ko weeru rajab tombé ak. ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ma ñëw ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru rajab ah, tombé ak euh, ndeyu koor junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci limu wolof ak arab macha allah bi suufle na Lamine gaaro gaar ngi taxaw witoo ngi taxaw witoo jiital tànku ndeyjoor gaaro gaar jiital tànku tamañ la muñ noonu la demee gaaroo gaar moo ñu woon ginnaaw noonu bilaay gaaro gaar géeroo gi ragal du jam nga du ñaari mbër yaa ngi ni ñu ngi na teg ndeysaan Vito ngi taxaw aji garde gauche bi di léewtoo benn loxo. gaaro garde ngi aji la garde gauche am moom itam na tekk na moom itam di ko déglu. pied gauche la ak pied droit. garde garde normal ak faux garde Lamine ñoom ñaar ñooy jàkkaarloo tey. mais damay dégg tey ki expert ñu ni fausse garde amul. garde normal amul. ah loolu la ñu wax de. damay dégg karaté kaay di ko wax ak judo seen sëy ma ci 2STV bi. Euh. nee na fausse garde amul. waaw d'accord ñoom euh, karaté la ñuy pratiquer waaye fii du karaté fii làmb la. da ngay dóor di jàpp. mbëri kat ay karaté ka dañ leen di entraîner ngay dóor di da ngay dóor di song. ah Fallou Garso 94. ah loolu kontor naa ko karaté yi ñuy jël muy entraîner mbër yi nañu ko bay ah. man maa ko wax. noonu la demee dama koy assumer. mbër bu ko ci def ñi ci ëpp ñëpp Lamine xoolal pour ñu am pour ñu am ndam bu rëy lay doon. mais du nag du ñu am dam zero kaana. waaye Sidoka nangu naa ko ci benn côté te Sidoka moom itam li ci ëpp balaa muy daanu daaneel te <laughs> te làmb moom amul daanu daaneel Lamine. boxeur yi waaw boxeur d' accord naa ci boxeur moom d' accord naa ci en suuf en cent pour cent boxeur laa gën a d' accord comme karaté ak Sido bi war a gën a Sido kenn mënu koo génne ci làmb parce que bëre la waaye li ci ëpp. daw na jël ko xeex nañu xeex nañu ca kaw. gaaro gaar Vito Vito la ngay seere làmb taakee bari ndeysaan ñoom ñaar ba léegi gaaroo gaar Vito Lamine ñaaw ñu ngi leewaatoo diggante Vito gaaroo gaar di nuyu Fallou Fall borom Touba gaaroo gaar wan leen ginnaaw jiital tànku tànku ndeyjoor tekki mu tekki moom Vito tekki na làmpu tànk ba dugal ca ngemb la waaw xëy na da cee amatul yaakaar waaye bàyyi ma ñoon Bébé Saloum bu leen ko fàtte le 12 mars le 12 mars fële ca la ñuy daje ñoom ñaar mu ñaar mbër yoo xamante ni ci ay jafe-jafe la ñu nekk Lamine defet interdit na bay ma ci bàyyi ma ñoon daw na jël la ci Bébé Saloum daw nañ ñi ngi ñi ngi xeex ñi ngi xeex moo Ndiaye directeur Seydou Madeleine maa ngi lay nuyu daw na jël ko Garo daw na jël ko Vito tëru ko. ndeysaan tëru ko daw jàpp ko gaaro gaar am na loxo ndeyjooram ci jëm. daanu nga Garo daanu nga Garo Garo daanu na. waaw waaw Garo da doon jéem a a bët. mu sarse ko far toog. mu puwa mu toog. gaaro Garo daanu nga. Garo Garo Vito daan na ko. laa ilaaha illallaah Vito daan na Garo Garo. soirée Vito. Vito daa te bëre ci yoon. teg na ko ci yoon ndeysaan mayul dara gaaro gaar gaaro gaar daanu nga daanu na moom gaaro gaar ndeysaan daanu waat na sukk na moom gaaro gaar mi ngi soog a comprendre ni daanu na wallaay ndeysaan mu ngi koy soog a comprendre la demee ñu ngi noonu di ko jëli na muñ Vito ngay sibaleeg waa këram noonu la lamb noonu la lamin lamb noonu la waaw tey nga daan suba nga daanu tey daanu na keroog moo daanoon. wallaay ndeysaan mu ngi fi mujjee daan ama bu Malika. ama bu Malika la mujjee daan tey daanu na. Modou Baye Fall moo tëggoon loolu muñ làmb demee noonu. noonu la demee Mouhamed kontaan ci yow kontaan ci amateur yi fooy mën a nekk si bi di leen jox rendez-vous le 5 mars diggante Sa Thiès ak ki nga xamante ni moom mooy rëg-rëg le 12 mars Bébé Saloum Baye Mandione le 12 mars ñaa bu ndaw nu mu tuddati ka ci Kër Massar ndaw ku war a bëree ñaamu ndaw kuy sama ndey jokkel jokkel baal ma nga xam ne am na combat lu leer laa lay wax la même kii bi yaakaar naa combat bi de moom moom day yomb barki maam Seydou Fall mi ngi nax boppam da ko ko wax ku yaa ngi nax yaa ngi koy nax nga liggéey te am yëpp ci àdduna kii moo ci gën a ñàkk sens. foo teg loolu kii respecté kii du respecté wu ma ko. da nga ko respecté woon respecté wu ma ko jéemu kii ku ma conseil ci moom sax li may conseil du ma ko def. ma jaar nii ma jaar ne ñu daje fii man ak moom ci naan. lu mu liggéey doy. man sax lu mu liggéey doy. sama ñeenti soxna yi laa koy booleel ñu duma ko daan ko. attaqué koñe gagné incha allah mënoo ci dara. kii xaaral lay wax la man. dégluwuma ko jéemuma ko respecté barke alxuraan bu arbitre sifflé ma dàq ko day daw dama koy jàpp daan ko billaahi dama koy jàpp daan ko incha allah rabbi kii maa ko mën maa ko ëpp doole. diggante Fass ak Thiaroye wala Fass ak Lamsar yëpp benn la rek Coly Faye numéro 2 ak PAM.